ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fa yéene sëgg ci waxtaan di gërëm internet yëpp rawatina ñi saxoo solution info ak solution TV tey ji ñu ñëw rek ci réew mi ak ni mu tëddee ak nomination yi bees yi ak ndëgg sërëx yi président Macky Sall tegal kii di Sonko ak Jomaay balaa muy dem ak noon yi wey di nekk ci réew mi ba tey ji di résister te wala fi dañ ne langum noonu du tuuti ku mer dem ca. te loolu lu koy dëggal mooy taxawaay bi ñenn ñi am ci réew mi yor ji koy baadool te dama ne baadool bu jibee gàcce fekk tàbbi du am jàmm te ñoom nag tegagunu seen ngànnaay bi nguur gi di njëkk di falu rek le 4 avril chronique bi ma def nee naa sonk ak Jomaay tey jii la leen nit ñi war a gën a taxawu tey jii leen war a gën a sàmm projet bi ndaxte koo xam ne bi ñu demee élection tey jii ci weer la toll ñenn ñi di tappale di leen laaj laaji résultat naan liñ fi waxoon ak liñ fi defoon ak liñ fi lii ak lee ci koo xam ne bu dee ni dugg na sax toogagul maanaam bu dee ni dugg na toogagul parce que tey jii képp ku ñu tabb nga doon ministre yaa ngi def état des lieux war a def ay audit mais aussi di def ay prise de contact parce que nit ki ñu doog bees loolu mooy njëkk a doon ci li ngay taxaw balaa ngay sëgg ci dossier yi nga fi fekk kon tey ji bu dee liggéey bi tàmbali na dafa tàmbali rek ci bunt bi waaye gars yi duggagul ci néeg bi sax toog seen bureau ba mën a liggéey normalement parce que ministre yi koo ci gis ay prise de contact lay def def état des lieux mais aussi ñu xool yenn dossier nan leen ko audité parce que tamit balaa ngay sëgg ci liggéey da ngay saytu la nga ko fekk nga dégg ay nit ay tappalekat yoo xam ne bu réew mi yàqoo bu réew mi yàqoo ñoo ko yàq bokk na ci presse bi ay journaliste yoo xam ne ba tey jii ñi ngi fi ay journal yoo xam ne tey jii une rek lañuy ñuy génnee ñi mode PDF rek la ñuy génnee doonoon journalu régime Macky Sall ay nitu Macky Sall ñoo leen créer woon ñu nekkoon fi di xeex ak Jomaay di xeex ak Sonko di xeex ak Sonko daal leen tuumaal lu ne depuis mbiri Adji Sarr ak tey jii terroriste salafiste lu ne ñu jiiñ leen ko ci réew mi sénégalais yi taxlu rek na leen dinañ egg ca lañ bëgg mooy teg leen ci bopp réew mi ndaxte projet bi ñu dikk projet boobu ñun ñii gëm nañ ko te am nañ ci yaakaar ba tey jii Sonko ak Jomaay nekk ca pale ba bu njëkk lu ñu doon wax waaw Sonko du jomaay <coughs> Sonko du jomaay ñu xëy Sonko fal jomaay te balaa loolu li ñu doon wax naan mooy Sonko du tànn jomaay nguur kenn du ko denkaane kenn du ko saraxe biñ duggee ci pale ba ànd di dox ñu ne non Sonko day nëbbu jomaay day nëbbu jomaay jomaay nekk président waa léegi Sonko bu jomaay di dox Sonko bu ma ko féete gauche na ko féete droite. waa léegi premier ministre bi sax bu ko falee da koy gene yoo la ay waxi tappale ay waxi yoo xam ne ñoom ñi koy wax waxta dundar mais li naan noon yàlla na noon dee boo déggee olof yi di ko wax looloo tax du bàyyi mukk ngembal caacaa la rek da yolom du tas noonu yooyu la nag ba tey ji ñi ngi fi noon yi fi nekkoon ci mbiri Adji Sarr nekk fi ci mbiri salafiste nekk fi lu ne ñu jëm ko ci Sonko ba ne nanu ko rey Amath Suzanne kamara ba tey jii mi ngi fi keneen ak keneen ba tey jii ñi ngi fi journal ya leen doon liggéeyal ba tey jii ñi ngi fi wéeragul seen ngànnaay buñ sañoon Sonko ak Jomaay échec buñ sañoon seen nguur gu du egg buñ sañoon buñ sañoon buñ sañoon parce que nag sonk ak Jomaay dañ fi bàyyi opposition boo xam ne dafa bari xaalis loolu tax audit yi dafa war a egg lu ñu war a nangu ci xaalis ñu nangu ko pour mën a liggéey ñu ñu war a jaar ak ñoom ci wàllu yoon ñu jaar ak ñoom ci yoon parce que Macky Sall avant mi dem dafa miine terrain bi miine ko maanaam dafa defar terrain ba mu rafet mu génn dem mais bi muy dem ay mine la teg mine bu ñuy wax mine personnel nag mooy ku ci teg sa tànk dee wala nga damm wala sa tànk dagg mais boo xoolee tey jii logique bi ñuy doxee mooy dana miine le terrain looloo indi balaa Macky Sall di dem signé fi ay décret yooyu yëpp pour miner terrain bi la pour mu jafe ci sonk ak Diomaye lu tax Macky Sall recruter fi ay nit nommer fi ay nit takkal fi nit ay médailles ci loo xam ne gëmu ko. dafa bëgg a miner terrain bi jaxaseel na ak sénégalais yi passeport diplomatique yi ne joxoon na ko ba jox ko ñoo xam ne warul leen ko jox moom président Macky Sall li mu ci jublu mooy jaxase Sonko ak Jomaay ak sénégalais yi noonu nag muy doxee moo indi ku ci mel ne Aji Mbergane Kanouté nekk député vice présidente assemblée nationale ak Abdou Mbow xam ne ñoom. ci largesse su président Macky Sall lan doonee doon waaye bu politique doonoon dajale mbooloo wala am mbooloo ñoom duñ doon dara ndaxte fa ñu ne mosuñu fa gañe dara ñooñ nag ñooy rappi rappi di tëb di dal plateau bu ne ñu toog fa di digle sangu te mësuñoo sangu mais aussi di diwoo loo xam ne ñoom xeeñuñu ko ndax seen fukki at ñaar yi fi lañu ñu fekk ci arrogance ci ay suffisance ci ay ñàkk teggin mais aussi ci ñàkk a weg réew mi ba foog ne lu leen neex def lu wolof fi naan ku dul sóoraale dee lu la neex def waaye ku dul sóoraale ëllëg lu la neex def nguur gi ñu ñàkk mus ñu gëm ni dañ koy ñàkk moo tax bi jubee élection yi ku mel ne Abdou Mbow doon jukk naan élection warut am parce que lii la sóoroon dafa foogoon ni rek day wéy rek nekk ci donkaasi gi di def lu ko neex di wax lu ko neex moom ak ñeneen ak ñeneen noonu yooyu la nag. ñi ngi fépp ci réew mi fépp fépp ci réew mi ñi ngi ci plateau tele yi toog di wax ci koo xam ne bi waxuma la bi mu jëlee pouvoir beeg léegi mais bi ñu demee élection léegi ci weer la toll lan moo fi ñor ba nu koy màcc lan moo fi ñor ba nu koy màcc tey ji ñu di wax dénk nañ leen réew mi fukki at ak ñaar mooy gars yi Macky Sall yi fukki at ak ñaar yooyu ñu wax lu dul yàq lan lañ def ci réew mi rey doomu jàmbur yi tëj doomu jàmbur sàcc alal réew mi ci fukki at ak ñaar lan lan liggéeyal réew mi ñii di rappi rappi lu lul yàq réew mi ba mu yàq seen loxo dem ba ab opposant dem élection gagné leen premier tour ci cinquante quatre pour cent lu jafe lu jafe te loolu seen mbon ak jëpp gi leen askan wi jëpp mu jur loolu looloo tax duñ fàtte liñ fi def rawati waxuma la ñu dem mais signé ay contrat yoo xam ne tilimal réew mi ku gën a bañ réew bi Macky Sall amul ci ci àddina te c'est un homme très dangereux le président de la République Macky Sall parce que mooy koo xam ne semaine bu ne daan na dajale conseil militaire yi ci pale bi di waxtaan ak ñoom sunu secret militaire yépp xam na ko pour un président de la République élégant boo xam ne tey bëgg na réewam fonk na réewam waru woon jekk ci Macky Sall mu dem di liggéeyal France France ñëpp xam taxawaay bi muy taxaw ba mu dem ab soldaaru français taxaw di tëkku réewu Afrique yi Macky Sall dem di liggéeyal France moo tax Macky Sall na ko gars yi bàyyi xel di ko surveiller comme di lait sur le feu Macky président wu Sénégal la woon mais kan la nekkaloon fii ba tax mu war a jógee ci Sénégal français yi récompensé ko mu dem di leen liggéeyal te fekk xam na suñ secret ya parce que bu ñuy bañ un président de la république jóge ci réew dem di liggéeyal beneen réew xam lu ñu ciy bañ secret yi mu xam ci réew mi surtout sur le plan militaire mu dem di ko jox beneen réew loolu lañuy bañ kon moom tey jii ngorom waroon na ko xañ Macron woo ko mu koy liggéeyal ci 4P Senghor bi mu paree dem na yoonam retraité. ñu bari sax ñu ngi naan sunu njiitu réew bu ñu paree la uti France waaye daal Senghor dem na waaye jàmmal nañu Abdou Diouf francophonie la dem jàmmal nañu mosuñu dégg lu Abdou Diouf jéem contre Sénégal lay Wade ba tey jii mi ngi ci réew mi bu dul Versailles ga nekk moom ak njabootam malgré que doomam tëj nañ ko ci kaso bi mais mosuma dégg lu Ablaye Wade jéem contre Sénégal kon Macky Sall nit la kun war a surveiller maanaam sa caqub noon boo ko fekkee sa loxom noon war nga moytu kooku te ñun France bët bi mu ñuy xool ak ni leen Macky Sall jege ma ak 12 ans yi mu def ci réew mi pare dañ ne cëppet dem defar palais boo xam ne ca Maroc kenn xamul nu mu toll hmm? kenn xamul nu mu toll palais bi pourtant Abdou Diouf jóge na fi amul kër wala bu ko amee du kër gu ñu mën a wax Senghor lay wàdd mais alal jamu tabaxee këram ga ca Maroc jan alal la Macky sàll nan ko surveiller bu mu doon kuñ jël au sérieux bu mu doon ku ñuy respecté nan ko surveiller te moom moo nekk fële ca tubaab yi mais ay nitam ñi ngi fi ba tey jii ay nitam parce que nan lañuy fayalee nguur matul un mois nga ni da ngay def censure contre le gouvernement nga koy annoncé loolu boo ko c'est-à-dire que gouvernement boo xam ne tàmbaleegul natta goo ko mettre goo ko à l'épreuve nga taxaw ne da ngay def notion de censure noonu yaa ngi fi ba tey ñi ngi fi ak seeni presse ñi ngi fi ak seeni page Facebook ñi ngi fi ak seeni groupe WhatsApp ñi ngi fi ak lépp lépp lépp waaye la Mamadou Dia doon wax mooy dëgg mooy ku fi mbaam mbaam lu ñu lawbe lawbelu sa kaw nguur gi buñ fi nekk naan non buñ jàppee diw dañ naan dictature képp ku tegu ci yoon ñu ànd ak yow ci yoon mais képp ku jalgati yoon pour salfaañe réew mi mais jomaay ak sonko nan leen wan ni ñoom ñoo jiite réew mi loolu na leer fokk tamit ñu ñu am na wax yoo xam jarul raay foofu laa ci yam beneen sujet bi may évoqué ba léegi génnul foofu mooy ñiy yàkkamti nguur gi nan wàññi ceeb bi nan wàññi diwlin bi ñoom liggéey gun fi amagul rupture bi bi ñu doon wax lu tax ñi am les mêmes hommes rupture du jëmmi ay nit doxalin la ña gënoon ca yéeféer ya ñoo gën ci diine ji ña gënoon ca ceddooy ga ñoo gën ci diine gi noonu da dëgg nga gis ay nit ne non ñii nan wàññi ceeb nan wàññi diwlin Macky Sall musta wàññi ceeb musta wàññi diwlin xam la moomoon mos naa ci waxtaan ak ab benn opérateur économique mu ni ma en 2012 njëg yi danoo yokkoon ci Sénégal yokk ba saaku ceeb di jar vingt cinq mille francs dem na ba les commerçants yi nekk inaakuoi am ñu nangu woon ni ñoom ñoo ko yokkoon pour xeex Abdoulaye Wade Macky Sall bi mu ñëwee xamul lu mu def da ko delloo ca njëg la njëg njëg njëkk la fa nekkoon rek la fa delloo mais wàññiwul loolu ñu bëgg a jël di ko jaay nit ñi di tappale fu ne ñu toog fa amul moo taxit ji nga ba nguuram di jeex njëg yëpp dañoo doublé waxuma la caaku ceebu parfumé waaye ceebu ordinaire bi rek mag parfumé presque ñoo tolloo njëg location bi mu doon da koy wàññi tey la la gën a seer carburant bi bi mu doon wax naan mënul nangu Mali di exporté carburant di gën a yombale te jaar ci port bi tey jii ba tey jii Afrique de l'Ouest bi ñoo fa gën a seer carburant électricité ak ndox ñoo ko fi gën a seer kon lan la fi wàññi ba tax nguur gi dafa gun fi weer ñu bëgg leen a dugal ci pression naan leen non da ngeen war a gaaw da ngeen war a gaaw nan dem sûrement et lentement mbir mi du jaar ci essenceur bi de jaar ci escalier yi moo gën a woor parce que ascenseur bi lu na mën na ci xew kon sénégalais yi nan gunge Diomaye ak Sonko ba parce que Abdoulaye Wade def na fi 2000 ba 2007 am état grâce Macky Sall bi mu duggee ci mbiri Karim Wade ah Karim Wade sax am na ci état de grâce mais mbiri xalifa Sall la ko nit ñi commencé jéppi parce que dañoo gis te da doon jël politique di ko xeexee sénégalais jug na ko déedéet. ba lay fal faluñu la pour ngay rey say adversaire bi mu nee je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression la nit ñi xam ne kii fa mu jëm du foofu bi mu taxawee sénégalais yi ne am naa huit milliards ci largesse su Abdoulaye Wade mais ci la nit ñi taxaw ne kii fa mu jëm ak ñoo amuñ fa ndox mais nguur gu defagul cent jours ñetti weer ñu bëgg leen a teg pression ci ay naafeq yoo xam ne nguuru Macky sàll bi mu fii ne yàq réew mi réew mi metti jafe lan waroon wax waxuñu ko lan waroon def defuñu ko bi nit ñi xeex ñu ne patt tëdd xar ba tey ji ñu gën di joxe ay leçon amuñu lu ñu wax réew mi bu tollee fii ba ñuy am sept mille sept mille mille milliards de dette bor yi réew mi amee fi réew mi toll fii du kenn kudul nguuru président Macky Sall kon bu leen Sonko ak Jomaay ne ci ñaari fan ñetti fan mën na noo lëg réew mi dal leen wax lu mënta ne léegi lu mën mooy jéem sénégalais yi am patience parce que projet bi nag sénégalais yi ñoo ko porté au pouvoir mais ñoo ko war a téye au pouvoir parce que xeex ba jot ci dara yomb na mais téye ko moo jafe téye ko nag du benn loxo mais ñëpp ay téyandoo ñu xol fan jëm bis bu ñu gisee nag Sonko wala Jomaay tegu ci tànk yoo xam ne doonul lan waxoon ak ñun bu boobaa nag ñu jug ci parce que bu ñu déggee ñu mel na ñoom Madiambal Diagne di trian trian lu naan nu non ñoom li fekkoon ci PSE la ñuy continuer mais lan lañ wax rupture daal rupture boo xam ne day ànd ak continuité mais loolu la gars yi wax mais nan lañ fi fekkee ay projet yoo xam ne taxaw na BRT TER bi fekk fi ay bor yoo xam ne leb nañ ko tàmbali ci ay projet projet yooyu dañuy ñëw ne dañ koy toj wala dañ koy sànni ci géej ga mais dañ koy continuer accord yi fi fekk ñu signé ko mais accord yooyu dañ koy révisiter xoolaat ko xool lan moo ci njariñu Sénégal ñu continuer def ko parce que doone li fi mag Sall def yëpp a bon du même bu bonee te mu ne fi mais dañ koy accepté ñu continuer mais gunge gunge leen ci loolu accord de pêche yi si signé woon ak Union européenne fekk novembre day jeex est-ce que dañ naan fekk novembre day jeex Sonko ak Diomaye def leen fi un mois rek danoo war a arrêter accord mais mënta ne. adduna day am loo bëgg mais day am lu mën a ne ak lu mënta ne ma jàmbal moomu di wax mais ñu wante dëgg fi la fi toog yàggul di demander kii di président premier ministre Ousmane Sonko ak Diomaye naan mbiru yaabi selim nan ko xoolaat mooy école Turquie nekkoon fii te Erdogan waxoon ni nan ko arrêté parce que ay financement terroriste la ban jox ko fondation Maarif ñu jox ko fondation Maarif boobu tey ecole bi ñoom ñii ñoo nekkoon ci conseil d'administration bi xaalis bari di ci génn robinet yi tëj bi ko Erdogan di tëj Macky Sall fekk na ko ànd ci ma jambal lan la ci waxoon léegi xaar ba tey li mu mënul woon ñaan Macky Sall mu koy ñaan Sonko ak Jomaay ci mbiru Yavuz Selim loolu mooy lan bëgg a jaxase sonk ak Diomaye ak réewum Turquie parce que Yavuz Selim ñu bari danoon fondation Maarif moom moo koy financé te fondation Maarif les Turcs dañ ko jàppale surtout le régime de Erdogan comme benn organisation terroriste léegi robinet boobu tëj na ñu ne na leen ko Sonko ak Diomaye ibil léegi bi ñu ko waxee gars yi faalewul leen ñu def ay mercentage di sànni xeer mais projet bii ñu teg ne ci leen bëgg a yor réew mi mais mënuñu ñëw bëre rek jëfeek moom li fi Macky Sall def lañuy xayma xool li ci gën ñu kon ne ko li bon ñu jël ko sànni fële. loolu tax les oiseaux de mauvaise augure jaruñu déglu parce que bu seen pexe jiboon sonk ak Diomaye du nekk au pouvoir bu seen pexe juboon du nu réussir moo tax ñu nome ay nit ñoom ñu jug naan nomination yi nii nomination yi nii. mais fal nañu ay ministre mënuñu ci wax dara tey ñu fal direction yi mais Sonko ak jomaa yi dénk koo wóolu dénk koo wóolu projet bi ñi ko doon xeex ba mu toll fi mu toll mais projet boobu bu ñu ko waree doxal ñooñu lañ ko war a dénk man ay appel à candidature ñuy wax nii bu dee laaj na ko ci ay post mais fu mel na tey RTS par exemple ñoo ne Pape Alé moo ko jiite man damay xaar ba Pape ale commencé doxal ñu xool RTS est-ce que na mu doon doxee lay dox wala ni mais RTS bu kenn xaar mu nekk Walfadjri mënul doxee comme Walfadjri parce que c'est une télévision publique télévision d'État nan te dëgg RTS mënul benn booy di sànni xeer fële mu jël ko di ko teg loolu du rôle RTS du taxawaay RTS les activités di gouvernement mais lay jël di ko doxal bu nuy wax pluralité ci RTS xam luy wax. mooy ci invitation ci émission politique yi liñ dul nangu mooy nga invité rek benn parti passif passif xanaa waa passif sax du nangu loolu parce que trop de communication ci la communication baaxul ci ñoom dañuy bëgg nga mën a invité benn Seydou Gueye mu ñëw toog invité benn Waly Diouf Bodian mu ñëw toog invité Massamba ak ma dem mu toog pour que parti bu ne mën a am wàll ci émission yi am RTS maanaam émission yi di am débat contradictoire mais dans le traitement de l'information RTS mënul nekk Walfadjri mënul nekk beneen tele ko loolu mënta ne léegi le profil de Pape Alé Niang gars yi naan Pape Alé ni mais Pape Alé sud banlieue la jóge def ISIC école journaliste mais am conscience na meloon ca Wàdd noonu la mel ci mag yi mais noonu la mel ba tey jii mais nag na mu doon doxalee ca sud doxalee ko ca 2STV El Hadj mais du Pape Alé boobu moo war a nekk RTS il faut xam loolu takk yooyu ak RTS duñ benn kon ku bëgg a juge Pape Alé jàpp ni na mu yoroon Dakar Matin la war a yore RTS du noonu léegi dañuy xool est-ce que mën a mënaan ci RTS parce que RTS lobby bu am doole moo fa nekk comme ci entreprise yu bari entreprise yi moom Sénégal ñett fi ne mooy ñiy xëy si di liggéey ñii ñëw di toog ci grand place bu weer dee ñu fayeeku beneen bi ci topp ci entreprise yi mooy ñii ñëw di fayeeku treizième mois ñoom weer ba weer nga leen di gis injustice bi am ci entreprise mooy ñiy liggéey duñu am dara tappalekat yi ak fenkat yi rek ñooy ëpp lu ñuy am parce que la ñuy wax moo neex directeur ba Pape Alé nag ak jaar-jaaram gëm naa ni genre lobby yooyu du daanu ci ñoom mais bu dee ci côté expérience mais bu ne sud mais sud référence la bu ne 2S mais 2S Pape Alé def na ko doom bu ne Dakar matin mais tey jii Pape ale bi muy taxawal Dakar Matin ñu wante dëgg boobu affaire yombul mais Pape Alé dem na ba man ci ci xibaar yi ma am mooy den dem na ba patron de presse yi bari ñemewu noonu recruter Pape Alé Niang parce que boo ko recruter nguur gi day dal sa kaw maanaam nguur gi moo taxawoon tam na Pape Alé Niang du liggéey ci àddina nguuru Macky Sall maanaam taxaw na Pape Alé Niang waratul liggéey ci télévision publique yi li may wax nii am na ñu ma ko wax peut-être bi ma dégg dinañ kii fan la yëgal lii mu créé détermination toog ci ngorom ak diineem dugg ci kaso lu ne mu daj ko ci wér-gu-yaram ak lu ne ba bañ jotee la bañ vingt ans d'expérience ku ko def ci dara war a doon dara léegi nag dañ ko mettre à l'épreuve mooy dénk nañ ko RTS nan la ko war a yoon nan la loolu nag management la mais bu dee expérience am na ko te jàmbaar la nga dégg ay nit naan la profil yu ñu teg Waly Diouf vingt ans la def impôt et domaine nekk le directeur adjoint impôt et domaine directeur adjoint bu impôt et domaine yor ko ba tey jii te bari na ci Pastef ñu mu ëpp xam-xam ak expérience wax ja bariwul ñu dénk ko port autonome de Dakar nan ko bàyyi mu doxal mu ne waa ñu ne noo appel à candidature lañ waxoon gars yi ñu fi nekk di politique daj lu ne ci parti Pastef dugg ci kaso lu ne ñu daj ko ci man gis naa ci Pastef ñoo xam ne tey jii ñoom Matar Sène nekk ci wàllu finance maîtriser ko ñàkk ci seen lépp nekk ci frigo maanaam ba Pastef tàmbaleeg léegi la lañ jëlee finance Matar Sène ki may wax moo Moodu xam na ko bari xam-xam te musul musuma gis ci tele mu toog di def émission ci mbiri finance rek la xam yàgg ak Ousmane Sonko lu bari mu koy def ci Pastef mais ku discret la. mais ñooñu liñ dundul ci président Macky Sall amul te pourtant ay punkal lañu bu leen joxee poste ñu ne ñoo appel à candidature la récompense elle est au bout de l'effort ku sonn da nga war a jariñu ñii mënuñu daj ci projet bi ba projet bu toll fii te nag liñ daj ci projet bi moo tax ñu war a doxal projet bi ndax ñoom ñoo ko xam kon nañ leen dénk poste yi ñu liggéey Ablaye Balde ñu jëlee ko APEX jël nit teg ko APEX ñu naan non ki teg APEX def na 16 ans APEX ki ñuy wax nii. 16 ans def na ko ab APEX mu ngi tudd nan yi Bakary Sega Bathily waa nekk ci spécialiste en management de de projet ñu nommé ko yaa ngi gis mu yor APEX def fa 16 ans xam ne ay gars la xam ne danoo nekkoon seen ruq di liggéey gars di leen dugal frigo lu ne. tey ji ñu génne leen frigo bi na doxal leen la leen doon metti ci entreprise yi ba tax ñu dugg Pastef ba tax ñu leen di sanctionné tey jii nag bu njaab yàbbee gawar feeñ man naari naari naar yaa ngi. dénk na leen mais nga bëgg a juger nit tey sa ko à l'épreuve kon tey jii projet bi képp ku ci sonn man dama dégg tey suba benn boroom xam-xam kilifa nag bu mag mais àndoon nga moom du ma tudd turam mu ne ñi ñuy fal ci projet bi am na ci ñoo xam ne am nañu ay diplôme am nañu xam-xam parce que nag boo xoolee maa ngi liste bi fii mais xaju pour nga lire ko liste bi ñu génnee démb ci nomination yi. mais am na ci ñoo xam ne ñoo dul seen bureau musuñu gérer deux mille personnes kon ñooñu bis boo leen boo leen dénkee deux mille personnes wala nga dénk leen euh, benn direction est-ce que dinañ ko mën a doxal mais tey jii Diomaye mos ci jiite dara ci réew mi musul nekk maire musul nekk député bureau la yoroon impôt et domaine Diomaye moo jiite réew mi lu tax nga mën a nangu ni Diomaye mën na yor réew mi te ñun ci direction yi mën ñu ko yor tan toll ay diplôme <laughs> mais xam na des fois dañuy jaay ay affaire intellectuelle xam-xam te li ñuy wax duñ ko seetluwaat bu jomaay mën a yor réew mi rek mais ñin teg ci Fadilou Keita merci Ablaye Fadilou Keita mais def na presque léegi man dix ans ci caisse de dépôt consignation bi ñu ko dugalee kaso dégg naa ci caisse de dépôt et consignation am na ñoo xam ne dañ ci meroon parce que danoo jàpp ni post bi mu yoroon mi ngi koy doxal doxal boo xam ne tëj ko ci kaso perte la pour Sénégal Fadilou Keita mi ñoo xam ne ñoo bokkoon ak moom liggéey parce que nag fii ku ne xam na baayam koo séqal liggéey rek mu nangu ak mu bañ xam na loo mën ak loo tëlee kooku bu ñu ko dénkee kes et dépôt et consignation gis ci moom njub ak diine ak jàng gu tax mu war ko jiite moom Fadilou du nga ko dénk pourquoi ñi jéggaan di jëli keneen Pastef li ñuy jëli feneen am nan ko am nan ko Pastef du part mbedd ah parce que ay cadre ñoo ko créer ay cadre yi nekk impôt et domaine ñi nekk ci wàllu trésor ñi nekk ci wàllu finance ñi nekk ci wàllu journalisme ñi nekk ci wàllu droit ay expert ñooñu nag du rek ay xam-xam wala mbiri diplôme rek moo war tax ñu fal leen mais bu ñu defee enquête de moralité ak personnalité bii tax ñu war leen a teg ci bërëb ñu teg leen fa léegi bu leen fa tegee nag nan fa war a toogee loolu loon war a xool loolu la tax Sonko ne projet bi fekk cinq ans laa koy évaluer Sonko fekk cinq ans laay évaluer le projet ñu xool nax def na résultat am déet képp kuñ ci denk dara mataloo ko Sonko lan la wax ku ci sàcc junni junni ma bàyyi la ak yoon mu rëq sa ndigg Ousmane Sonko ko wax kon ñun dalal nañ suñ xel Macky Sall danaan protéger ay sàcc tey jii ñi ñi ñi ñu topp yëpp di leen audité ci OFNAC ak Cour des comptes ak IG mais ay sàcc lan woon Cheikh Omar Anne mii tëb fii di wax mais Cheikh Omar Anne dañ ko atte ku dañ ko dañ ko yóbbu OFNAC xam nga ban dogal lañ joxe dañ kii lu mbooloo bokk kenn waratu ko dénk Cheikh Omar Anne jugee kuddu Macky Sall dénk ko enseignement supérieur maanaam nit ki ñu koy jiñ sàcc ginaar nga jël ngunu la gént ko ko dénk ko ko mais day reeree ginaar yëpp. maanaam yoon dafa ne Cheikh Omar Anne waratul jiite dara ci réew mi Macky Sall jëlee ko ku du dénk enseignement supérieur ñu pare enseignement supérieur mu dénk éducation nationale Mame Mbaye Niang Prodac mu jël ko defal ko promotion ku mës a jiñ sàcc ci nguur Macky Sall ba ci Mamour Diallo mu dénk ko dénk ko ONAS ONAS ñu teg fa docteur Cheikh Dieng ci wàllu environnement ñi ko gën a xam bariwul expert la ci ingénieur la ci kàngam la docteur Cheikh Dieng bii ñuy wax. ci nguuru Abdoulaye Wade moo jiite woon sa Saprosen xaw ma Soprosen moo ko jiite woon kon kooku tey jii bu ñu demee ba dénk ko li jëm ci wàllu ONAS assainissement lu mu jàng la lu mu xam jëluñu ay xuusement ñàpp ak ay gars yi njaaba njalle di leen fal léegi nag nit ki am ay diplôme ñu fal ko wala léegi nag théorie am na mais pratique am na mais nit ku da koy jugé ci pratique mais nguur gi mënu fi def weer demaguñu. rek ñu bëgg leen a teg ne léegi nag ñoom ñi ñu fal xam na ni gënuñu fi dàquñu fi jàng ëpp ñu fi xam-xam mais tubaab dafa ne kii choisir élimine képp ku tànn rek dina am ñoo bàyyi waaye ngalla bu nu wor projet bi wor projet bi xam mooy lan ñu fal la nga fuuyu fuuyu xam mooy lan ñu dénk la nga foog ne yaa ko moom doo jëlati téléphone nit ñi bu lay wooti doo faale nit ñi booy yi nekkoon ci terrain bi di xeex daj lu ne ci projet du ñàkk ni amuñu diplôme yi leen mën a jox yenn poste yi mais bëgg nañ ku leen yëg faale leen bëgg nañ bu ñu amee soxla am kun ko wax mu lijjanti ko moo tax képp ku ci xaj nan la ci xajal l'essentiel mooy fal te nga liggéeyal Sénégal ba feeg cinquante ñu gis résultat yi gis ni nguur gi kat yéex nañ cee jot la Pape ak Cheikh doon wax nguuru Abdoulaye Wade yéex nañ cee jot mais ñin tànn nii gisuma ci sikk général Moussa Fall lañuy wax bari na ñu ko doon xalamal ak di ko mais Moussa Fall fa mu ne waru foon ne ci information yi maam am parce que pour nga nekk fa da ngay def école de guerre musul def école de guerre mais ay ju un général ay journaliste ay animateur ku ne di ko xalamal naan diplôme yam am li mu fi def ak lu mu fi deful lu dul bu xale yi génne ñu duma leen tey jii ñu remplacer ko mais jël nañ fi. aide de camp wu président de la république maître Sélé Ndiaye moo nekkoon aide de camp wu Macky mais maître Sélé Ndiaye waru woon nekk aide camp parce que aide de camp warul am rang général ab aide camp warul am rang général colonel la war a doon nga gis ci presse ñu naan non doon Macky euh, Diomaye dafa sambule Macky Sall moo sambule woon lépp jomaay kay xam lu mu fi defagum maanaam jubbanti li dëngoon li xotteeku ñu ñëwaat ko li jubul woon ñu jubbanti moo tax mun a jub jubal ak jubbanti loolu daal régime bi ak xeex yi gars yi Macky Sall tax ak yenn ci presse bi ak yenn ci noon parce que opposant amu fii ni ko Mara ñax di waxee ay noonu fi ne waaye nag nan xam ni nguur gi soppi nay loxo fii ku fi euh, mbaam mbaam la la Mamadou Dia doon wax ku fi mbaam mbaam lu ñu lawbe lawbe lu sa kaw gërëm baax Abdoulaye Diallo Abdou Top ak euh, Modou Diouf ak euh, Fallou di leen gërëm bu baax ci 30 minutes chrono di jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp Omar bun Xattaab Gueye nekkoon ci kàddu gi ba beneen alxamis incha allah.